salaamaaleykum sama gaay ay bëgge ñëpp di jaar bu baax baax di jaajëfal gaay yëpp di jaajëfal gaay yi nga xam ñuy suivre suñu seen MG TV officiel ñu ngeen di jaajëfal bu baax a baax ñu ñëwaat ak yéen si beneen astuce rek beneen waa astuce ñu ngi si jaajëfal gaay yëpp ñëwaat geen yéen si application bi naka ngay vérifier les image image bu xamante ni si ne da nga télécharger Facebook wala si réseaux sociaux yi dafa bëgg am ay information image bi ba xam c'est fere wala c'est faux naka ngay vérifier les images ba xool ko ba xam image bi dëgg ak falan ka ak yooyu bëggoon na ñëw wan leen naka nga koy defee ci application su ko defee dañuy ñëw dugg Play Store ñu wan leen application bi vite ñu dugg suñu Play Store ñu duggee suñu Play Store ni yaa ngi sa Play Store nga ñëw ci barre de recherche bi so buggeci baada recherche bi nga bind réviser image moo nekk nii boo nekkee mi ngi nii réviser image moo nekk nii si kaw bii la voilà ñun nag téléchargé nañ kaw pare yow nag bu fekkee téléchargé kooku boo ñëwee fii da def loolu rek nga téléchargé ko boo xoolee moo image bi moo nekk ni bii nii la léegi sa image bi kii bi daan application bi daan def si suufu description bi ko defee voilà heure boo demee si suufu description bi di am ak si application bi mi ngi nii application bu fiable la te danaa vérifier les images quoi soit euh, nga télécharger image si Facebook wala si réseaux sociaux yi foo amee image rek pour nga xool fan la woon si wala c'est vrai wala c'est faux pour nga vérifier image bi quoi ba xam kan la. bu defee léegi dañuy def offre yi ñu dugg ci application bi ñu wan leen voilà boo duggee ci application bi application bi moo nekk nii installé nañ ko pare moo nekk nii nga ouvrir ci application bi léegi dañuy dem suñu galerie ñu wan leen ban image lañ bëgg a vérifier def partout léegi dañuy xool sunu galerie ñu dugg sunu galerie ñu. Walbal image leen bëgg andi foofu xool ko voilà boo xoolee léegi ñu ngi sun euh, galerie nii ñu xool ban image lañu bëgg a xool léegi boo xoolee ñii bëgg a xool image bii boo xoolee image bii lan bëgg a xool léegi yow image bi man nga xam ba xam fan la am déet image bi boo xoolee lii ay manifeste la woon quoi léegi danoo bëgg xam manifeste yi fan la woon waat léegi dañuy quitté ñu dem en application su ko defee léegi dañuy génn ñu ñëw dugg suñ application ñu xool suñ application moo nekk nii léegi suñu application dugg nañ si moo nekk nii boo duggee sa application bi da ngay ñëw fii nii si plus bi mu def si suuf waa ko dugg si plus bi duggee si plus bi dina la indil fii galerie ak caméra léegi yow image nga bëgg xool bu tamit nga photo nga xool les vérifier les images léegi ñun galerie lay dugg suñ duggee galerie ñu bàyyi mu change mu ñëw ñu dem galerie mu gën a gaaw ñu dem album ñu xool Facebook les images pour télécharger les Facebook ñu dugg duggee image bi lan noonu dañ kaa bëgg a vérifier quoi automatiquement boo ko dugalee day ñëw fii vérifier yaa ngi xool mi ngi nii kuy vérifier moom yaa ngi des euh, kii recherche bi nekk si suuf léegi si kii recherche bi ngay bës ñu bàyyi mu chargé la image bi waaye mu vérifier ñu les image bi chevre wala chevaux yi détecté image bi wan ñu information li ci nekk yëpp voilà euh, automatiquement daf lay indil information yi xamante ne si nekk na ci image bi boo xoolee image bi mi ngi nekkoon manifestation à la place de l'Obélisque public le premier bannière Facebook boo xoolee image bi moo nekk nii daf lay indil. Euh, information yi nekk ci appli kii bi yëpp image bi yëpp lan fay indi li boo nekkoon mu nekkoon le 9 mars 2021 le mouvement pour Devance yëpp image bi dafa lay indil image bi les informations yi xamante ne si dafa nekk ci image bi yëpp tout ça la lay indil quoi boo xoolee image bi yëpp daf lay indil quoi ay xool information yi xamante ne si nekk na ci image bi ak euh, bis bi nga ko foto ak euh, boobu yëpp daf lay indil quoi. léegi dañuy génnaat ñu xoolaat beneen image day mën naa nekk léegi dañuy tuggaat ci application bi ñu def plus ñu def foog galari ñu xolaat beneen image ba xam mën naa nekk voilà tugg fi ñu xool ban image lañ war a mën a amaat pour ñu xool image bi dafay ñu dem mbaar ñu vérifier l'image ba xam image yi lan la woon automatiquement rek da nga retrice yóbbu si Google indi la image bi boo xoolee bii ni muy nekk 6 décembre Sall quoi mooy bi kii nii kii Ousmane Sonko à levée de la session recherche depuis 5 jours daf lay indil lii mooy nekk 5 mars 2021 Ousmane Sonko tribunal quoi de Dakar. perte de kii loo boo xoolee information yi nekk ci kii bi yëpp daf lay indil quoi moo tax photo boo si bëgg information bi pour lan la woon ak lan moo ko waraloon rek automatiquement boo ko dugalee si application bi daf la koy indil tout la lay indil discussion kii si yëpp information yi si nekk si image bi yëpp. laf lay indil quoi application bi daal application bu fiable la te yaakaar naa tamit ñu si bëri daan ko soxla pour xolle image c'est vrai wala c'est pour am say information yoo xamante ne si la yu réel la quoi ñuy jaajëfal gars yi suivre seen seen Omzo TV di wax na ku abonné gul la nga abonné te bés cloche de notification yi pour ngeen di bañ a rate suñu yeneen vidéo jaajëfal gars yëpp ah.